asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mboolem ñu nekk ci al ibaadatul xidma yëpp di teg nuyoo bi ci loxol suñ Demba Cissé ci buntu bi di nuyu suñ Moussa Ndama ñëpp rek waaye di teg suñ doxo ci waxi sëñ Abdoulahi Touré muy wax joo xam ne yàlla kese la. ndax sëñ Abdoulahi moom yàlla dimbali na ko ci ah, buy wax waxam day jóge ci xol waaye ci xol lay tàbbi te li ciy firnde rek am na benn bis jenn wax ju mu waxoon joo xane bi ma ko dégtalee sëñ bi dafa wax ne nag ma ko indil yaakaar naa bam bokk ak jataayu sëñ bi mu sant ko lool te wax ji gërëm ko ca kon loolu mooy mooy mooy joxe tegtal ci ne moom ay waxam eh, yàlla rek moo ko tax di wax yàlla yi dénk ko xam-xam lafit xam xam-xam am na waaye ubbeeku xam-xamit am na ndax ubbeeku dégg day mbir moo xam ne day mbirum sunu borom nit ki mën naa jàng téere yi ba ne ar ab sàmm jóge fële def loo xam ne dana ko firil aaya bu mu jàngoon te xamut lu koy firi loolu am solo yaakaar na al ibadatu wal xitma ku jàpp ne am nañ doxin wu wuuteeg wañ nekkoon sax xam des na lool ci doxinu daara ji ndax daara ji moom kenn ku ne xam na ne kenn nekku fi ngir intérêt kenn nekku fi it ngir raggalante ay ginnaaw ndax boroomi xam-xam ñoo fi daje ngir jariñante ci seen xam-xam kon euh, boobu jataay jàpp naa ne adduna taxul leen a jóg xanaa kay liñ bëgg lan la mooy bëgg moom seen bopp génn ci njaam ba tax na kon ku dégg wax sëñ bi dëgg dëgg dëgg mooy ngor ak jom ngor ak jom rekk ci lañuy ñuy rawante waaye jom ba jom jeex bañ a des ginnaaw rekk la lan mooy bañ a des ginnaaw ndax toog yoon wi nga xam ne moom la mag ñi jaaroon ñu dindi ko teg ko fële jaar ci yoonu bakkan jaar ci yoonu réer jaar ci yoonu xisa ay nit ah, di tëggoo loo xamante ne bokkut ak la taxoon sëñ bi jug ndax loolu mooy ngor ndax loolu mooy ngor ndax loolu sëñ ngor balaa am njariñ danga koy jaay yàlla lan la ñuy jaay yàlla ndax bàyyi lislaam mu ñaay rek noonu yu jóg wër ngor la ko wet gu ne lépp lu diina rafetaloon ñu ñaawal ko lépp lu diina ñaawaloon ñu rafetal ko dem ba di xalaata taxaw ci sunum réew di fi wax naan assemblée bi war nañoo wate góor ak jigéen dagan ci sëy jigéen ak jigéen dagan ci sëy ndax ensemble boobu ndax ñi nekk ci diine bu fekkee ngor mi ngi ci ñoom ndax ñoom war nañoo bàyyi ensemble boobu ak ay ay seeni moroom doomu aadama ñu nekk fa ngir saxal ngir saxal li nga xam ne sunu borom da koo bañ ngir saxal dindi li nga xam ne sunu borom da ko da ko da koo tere ndax buñ toogee di seetaan loolu ndax loolu ngor la ndax loolu ngor la ndax du danoo bëgg a dund ndax bëgg dund ak ngor bokk na am na ci loo xam ne bëgg a dund la du ngor am na ci loo xam ne bëgg a dund lépp lu ñu andi lislaam muy loo xam ne da day dal ci kawam di ko baañaxe nga toog rek bàyyi ne jàmm am na <laughs> boo ne eh, boo ne ma ma ma ah, war ngaa war war ngaa leeral lan mooy ngor ak jom de waaw ngor ngor waaw ah, moo tax ngor ba ngor jeex lu ñu war a jaay yàlla sunu borom la jaay gi yàlla sunu borom nag mooy yëkkati sunu loxo xamal noonu lislaam yi ne leen lii la sunu borom bëgg te lii la bëgg ñu dunde ko te fii ngeen toog di dogalit war nañ fee mën a taxaw ginnaaw dara mayu leen ko lu ay carte ñu war na mën a dajale sunu carte yi lan ca man daw ca ba jeex mun amee leen bëgg yàlla xam ne def na lan war buñ amul lan bëgg yàlla xam ne def na lan lan lan war ndax moom mooy sotta lépp jàmmam lot na ci lépp kon ma sëñ bi li muy wax al loolu lay dund taxaw gii ñu taxaw ci bëgg mu jaral nu suñu alal jaral nu suñu bakkan ngir ensemble bii nga xamante ne lépp lu nu naqare ci suñu diine lépp lu nu naqare ci daara lépp fa lañ koy watee ñu teg ci loxo téye ko jëmmi teg ga loxo nag du yomb du yomb loola jom moo koy moo moo fay àggale nit ki jom jooju it nag jaay ko suñu borom mooy tax nga mën ko yàlla rek tax te dara edduna eh, eh, bañ caa dugg kon jom jooju lañ bëgg moom ñu jël ko jom yi xam ne kat ay nit dong lañ ci nekkal ndegam ñoom ñoo ñoo ñoo booloo euh, ci not nu ci def lu woon euh, kon nu war na noo booloo euh, damm seen loxo ci jël ensemble bi ba taxawal fa lislaam la mu bëgg te doomu aadama it dafa wërta wees la boppam dara ndax boo jombalee sa bopp rek jàpp ne doomi daara yi waruñoo mën a nekk ensemble ñëw mën a gouverner loolu nay doon sëg yaafus loo xam yaa ko téel sa bopp waaye bu ko askanale sëñ bi bu ko askanale keneen ndax sëñ bi moom yaakaar naa bu yemoon ci der bi rek <laughs> julli ak dem ca jàkka ja kon kenn du ko yóbbu la tax ñu yóbbu ko lu doon waaw la tax mu bàyyi njabootam bàyyi lépp ñu génne ko réew mi teg ko fitna yu bari lu mu doon. ngor ak jom moo ko yóbbee te ngor ga ak jom ga mu jaay ko sunu borom moo tax mu génn réew mi moo tax coono yu ne mu tàggoog moom moo tax euh, mu tàggoog jàmm nekk ci résidence citoyenne ba ni mu fi jógee loolu la ko yóbbee lépp mooy ngor ak jom te ngor ndax ngor jom moom boo ko jaayee sunu borom dëgg dëgg te muy dëgg te muy dëgg jenn jàmm ji moom dana néew ci yow dana néew ci yow waaw dana néew ci yow xanaa kay eh, déggin yi ah, moo xoromu moom moom ku jël sa dégg rek ah, daal xool na na na mu na mu na mu na mu na mu jube ci sa bakkan rek eh, nga daal di ciy firé firé firé firé noonu waxi sëñ bi te loolu daa yomb nag ndax alxuraan nag ñii daanaka fi mu toll ba fi mu toll da nga ciy dégg ñooñ bu ñu firé rek day xoromu lool dañuy seet dañuy seet la leen arrangé rek ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu firé wax ja waaye wax moom des koy des koy des koy des koy delloo ci yàlla waaw wax wax moom jamono yoo xam ne wax nga ba àggal wax ji moom na tàbbi ci na ko sunu na sunu borom moom lépp na suñu borom moom lépp kon nag li nga xam ne moo am solo mooy daara ji di lii mu nekk jug taxawaay boo xamante ne dafa am engagement ci bëgg réew mépp ñu àndandoo jubandoo xam ne tumuranke yii daara yi tumuranke amut ku koy saafara ku dul doomi daara yi ñooy taxaw taxawaay boo xamante ne daañ ko mën a saafara loolu nag ah, eh, eh, mbir dama ko waxoon ca départ ba rek eh, bu jógee ñett ñoo koy séq ki nga xamante ne day wuy si ci saasa nga xam ne moom boobu dégg rek daa wuy saasa ki nga day dem ba mu yàgg mu doog a nangu ak ki nga xamante ne moom bu ñu demoon ba loola taxaw sax day di gàllankoor ñett ñooñu rek ñoo fi am. waaye yàlla dimbali nañu it ba sumb bii nga xam ne moom la al ibaada waxit ma am bu ñu seetaan sumb bi li nga xam ne moo moo ñoo ci amatul dégg néew nañ ba ba ba jéggi dayoo. muy lu jafe ci mbooloo ndax mbooloo dañoo wax ne bu matee eh, eh, téeméeri nit ngi am sax eh, trente yu yu déggoo sax teewut mu baax waaye nag yàlla dogal ngi am ay junni junni nit te buñ doon xool ñi ci amatu dégg daanaka amatuñu juróom-benn loolu lu yéeme la loolu lu yéeme la kon noo ngi sant bu baax di gërëm bu baax ñu xam ne daal ñun nekkuñu ci lu dul li nga xam ne moom la fi sëriñ bi bàyyi woon li fi sëriñ bi bàyyi woon nag dara da caa jiituwut taxaw taxawaay boo xam ne di dee su noot lislaam suñ taxawaay béppit fas yi ne taxaw rek ba nos lislaam jot boppam jot boppam génn ci tumuranke gi nga xam ne mi ngi koy dund ku jàpp ne lislaam am na jàmm nag ku jàpp ne lislaam tumuranke wut yow sa dund lislaam des na des na waaye réew mi moom képp koo xam ne yaa ngi dund lislaam te te xam lislaam dëgg dëgg dëgg xam nga ne fii mu toll moom lislaam mi ngi ci jafe-jafe yu mag yoo xam ne ku lislaam ñor ku ne war ngaa sol sol daal te taxaw te fas ci yéene jublu loolu moom mooy li wér jërë ngeen jëf